بجاه عبد الإيمان لله قد لجاء ربي بما يسره أزان قد فجاء بجاه أبدلي لله قد لجاء حمدي لرب كريم من لا شريك له وسادري اليوم أنو رمزتي الملائكة ورد الخلق ما يغتر من برا نجيد جل وما وكرمني تكريم هاد الوكل لمن لها البريئة رمى لجميع إخالق رحمة من يهني أني شري من خرانه خراء خدر صفوة المصطفى عن كل ما سدات وترأمي خلخايا مجاده بدا يا مالك الملك يا من جعل هوادم ارهب جميع الورى يا هادي يا رداء هود ما قنا وخالب من درارنا بجاه عبد الإيمان لله خلجا جمعت لي ما لم يكن ولا يكون لممكن يا من لو كن فيكون جمعت لي ما لم يكن ولا يكون لممكن يا من لو كن فيكون ملكني أنت المليك والمليك ما لم يكن لمالك أو لمليك سقيتني لا جنان بالنيا بك يا من خاد لي خير هيا سكتني هند جنبك يا خير جار هن مكثت عندك سكتني هند جميع جندك yaa xayra jaayin hamma kastu indaka sëriñ fallu mbakke mooy falfale ku sopp sëriñ fallu mbakke mooy falfale te def ko ne amu fal la ngay fale kii mooy saahibu dalla sëriñ fallilo maamum sariif la sariifun bun sariifun sariifun bun sariifun tuuma jibula ku sopp sëriñ fallu mbakke du xoti saatir la siyaakaar du daw koy laaj ku lay meleegi ya alaaji fallu xandila lawlaaka sëriñ falilo lawlaaka sëriñ falilo lawlaaka sëriñ falilo xeewali wali kon bo waleete nañ way seexuna fuddala fanu asimun sey la faas la mbakke musoobe la kii moo njiit subhaana rabbika rabbil izzati amma wa salaamun ala mursalin alhamdulilahi rabbil alamin noo ngi ñaan fi jàng ci ay xasida yëpp wax ko ci wolofal sëriñ Fàllu yàlla na ko yàlla def aw yiw sodd ko ci jër barab bi ku fi teew ku ne yàlla fa ci barke sëriñ Tuubaa noo leen di nuyu ci turu sëriñ Basiiru Mbàkke mi toog eh, sëriñ Basiiru nekk doomi sëriñ Cheikh Mbakke sëriñ Cheikh Mbakke nekk doomi sëriñ Basiiru sëriñ Basiiru nekk doomi sëriñ Touba sëriñ Cheikh Mbakke mi ko jur soxna Asta jur ko euh, soxna Asta Faal maam Seera Faal jur ko muy nit koo xam ni fu mu teew fu nekk dafay teew jëmmi sëriñ Touba waaye teew fi itam jëmi maam si rafal lamp Baay Muridiin barab bii nag mu ñëw fi ñëw ju am yitte ju kawe te màgg lool muy ki nga xam ne moo waral suñu diggante ak moom bu di ko fàttali ko waale muy sëriñ Daawda Jaañ noo ko yàlla yàlla doole ko leer doole ko yërmande doole ko ngërëm ci barkeb sëriñ Tuubaa kon nag ñu taaxeeru rek déglu kàddu sëriñ bi mu yëkkati ko jëmale ko ci mbooloo mi insha allah taala ñu ngi nuyu waa jotaay bi yëpp di siyaar sëriñ Basiru Bisiri mii nga xam ni bu yàggul rek mooy woon Gosaas di fa waxtaan ñu bokk fa nekk yàlla na yàlla kawel ko te doole ko doole ko tawfiix ci ak sëñ Tuubaa kon ñu taaxal jéglu sëriñ bi insha allah jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaw sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa mbokk yi fi teew ñu ànd sant suñu mu tabaraka wa taala mi ma ñu fekk ko daaw waaye fekk ko ren mu jataay bu am solo di jataay bu kawe ci lislaam itam ndax mboolem jullit mu daje rek di sant suñu borom dafa kawe rawatina ñuy fàttaliku ñu ñaan àndal di jaamu yàlla moo tax ñu sant suñu borom bu baax ci fekke gi sëriñ kër Pouy day mel ni bi nga jële kàddu ma noppi rek jeetu kenn di wax ndax wax ju am solo ji nga wax ci turu Abdul Karim ak ci turu bopp waaye lépp itam di ay njariñ kon nag imaam jërëjëf may nuyu itam sama mbokk yi tedd yi ma dëlal muy sëñ maxtar ak sëñ xaadim mbakke maa ngi leen di nuyu te di leen jot loo am nuyoo ci sëriñ abdul karim sëriñ maara gëy yaa ñi nga àndal liggéey bii noo ngi leen di sant bu baax a baax tey jii dañoo fekkoon ci ay xarxat yu baree bari léegi rek lañ jóge ci lu mel nii te fu sori nag waaye dañ ko fekkee daaw macha mu am solo lool waaye ren jii bu ñëwee itam gis nañ ni yokkute am na ci bu baax a baax kon def lu baax rek mooy li am solo yàlla nañu suñu borom gàttandu ak ngërëmam ñoo ngi leen ci ñaanale itam ñu ci ñaanal itam muy mbokk yi baax ya àndal te di leen fàttaliku yàlla na yàlla xara àjjana lépp luñ fi ñaan itam yàlla na ko suñu jotale Moussa Lamine yow tam dégg nañ sa kàddu macha allah muy kàddu yi am am solo yu ànd ak pasteef loolu itam bi nga waxee li ñuy dégg rek mooy ab jullit piir buy wax ndax jullit dëgg warta am xejj ak seen ndax lislaam rek mooy lay am solo te mooy lépp itam kon boo waree ni taalibe bi si amati yaan waaye wala sa cofeel si Mbakke Madina yemoo sopp ko waaye def ko royukaay ndax li baax li nga xam ci moom loolu moo tax may loolu mooy jikko jullit dëgg dëgg dëgg kon nag jërëjëf sëriñ Abdoulaye Diop Bisiri ñoo ngi lay nuyu moom itam di suñu soppee bu xam ne bu muy nit koo xam ne itam mën naa jàjj ko ne rawatina ndaw ñi ndax moom daa bokk ci ñi nga xam ne mën nañu wax ak jamono fi mu toll nañu waxtaane bis bii te nag alhamdulilahi bañ ci yàlla dajalewaatee ndax moom kat bu ñu soyeen jitaay bu ñu dem fekk ko fa ndax li muy wax lépp njariñ la bokki soxna yi itam noo ngi leen nuyu bu baax a baax ñi lañu fekk woon daaw fekkaat leen ren kon yàlla nañ ko àndaat ay yu baree bari ci bàkkib Sëriñ Tuubaa ndax yéen lu baax lu ne yéen ci man li mbokk waxtaankat bu baax bu dëkk Cees di wax mun na jigéen ñi dañu tax ba di wax am am ba am am dëkk ak ñoom ndax ñoom seen lépp rek wut lu baax la xeebuñ ci dara nawuñ ci dara itam lépp lu wax ci lu baax rek ñu fekk lañ ci kon nag jërë ngeen jëf jëf jërë ngeen jëf waaleykum kon ñu taal loxo yi sëriñ bi def ñaan bisimilah na ñëpp wax amin fas ci aajo yëpp yàlla na fay ci barke Sëriñ Tuubaa sidnaa fataaku lay min saadatin wa biyatil xadim yaman ajaba al istijaaba habli ijaaba bi jërëjëf Mbacke yal na yàlla yàggal taxawaay bi nga yàgg fi loolu di ñu gunge waaye dina am kàddu yu ndaw rek yu ma seede ci sëñ xaadim Mbacke mi wax dëgg yàlla fa mu dëkk sori na waaye chaque dimanche day dagg cëm yëpp ñëw di ñu jàppale ci liggéey bi ñu ngi koy ñaan yàlla gudd fan borom baax la dëggantaan ñu ngi lay jaare Mbacke yàlla fi yàgg te ànd ak wér ah, sëñ Mara monsieur le maire nee na daal nga yeewee ko ndax daa am ay yitte yu muy def suba dañuy bay armée te daf ca am taxawaay bu mu cay def kon moom nee na mu ngi ñaan nga yeewee ko rek mu yegg ca kër ga ndax daa am yitte yu muy doxi suba muy bay fa nga xam ne ña fa ñun ñëpp nañ leen fekk ji ndax kullu nafsin saay xetil mawti kullu man alayha fan nañuy bàyyi xel bés boobu xam ne képp koo xam ne mën nga faa dem bu doon benn band sax nga yëkkati ko teg ko am na solo ndax ku nekk am nga fa kër ala kullu alin du jaas na nañuy yërëmante di jéggalante ànd ceeg jaamu yàlla xam ne àdduna bi jaamu yàlla kese kese moo tax suñu borom wàcce ñu fi képp ku fi jaamul yàlla boo dee di nga ko leeg suñu borom kon yal nañu yàlla defal tawféex di siyaare ab Ablaye Diop Ndiaye mi nga xam ne moom njaay laa koy santale xam naa ne sant bi daa xaw a kii lool bàyyi ma santale ko njaay rek ñu koy siyaare baax. sëñ xaadim ah, alaaji Pape Ciss nee na mu ngi lay seedeel li wax léegi ci sëñ Daouda Pouye mu di leen seedeel sëñ Ibrahima mii bi mu tolloo si jàng sëñ Daouda daf ko woo ci kër sëñ Ibu Thiaw ne ko dama bëgg mu dem ndar mottali ji alliwaam ma ne ko doon mbër doomi mbër war naa jàngi bëre ndax yàgg-yàgg des na ko mës ñam sëriñ Murtala ngi ni toog di rakkam bi mu tolloo ci jàng fii ci ndakaaru li fa sëñ Daawuda am ciy dal bari na lool waaye du fanaan fenn kër sëñ Ibu Caw lay fanaan mu ne sëñ Murtala yebaluma la fenn demal sa kër Baay Pap soo demee nga dal foofa sëriñ Murtala xilaafu zahab këram la ko jànge ba mu mokk mosu faa jógee kon sëñ Daouda Pouye yàlla yàlla fay ko bésam boobu nee na mu ciy sonn ñëpp vingt 24 ci janvier incha allahu rabbi bisimilah sëñ Mara bisimilah.